بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله قبل كل أحد والحمد لله بعد كل أحد والحمد لله على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد ومن والاه عدد ما تعلمه من بدء الأمر إلى منتهاه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 mbokk yi déglu jotaayu lislaam di ko dégloo ci seneweb point com ak ci oustaz point net noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen baal xaq di ñaan sunu borom subhaanahu wa mu boole nu jéggal sunuy jaamu yépp yàlla nu ko yàlla nangul suñuy mboole mi rëcc rëcc yàlla nu ko yàlla jéggal di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal nu ak dégg gu ànd ak topp ba lépp lu nu rotal ci jataay bi nopp yi dégg ko xol yi taataan ko sunu borom subhaanahu wa taala nooyalal nu sunuy cër ba mu jëfe ko te bu nu ko jëfee borom bi nga xam ni mooy nangu jëf yaa ji jëf mu nangul nu ko yool bu mu ñu ci bindal mu fulal nu ko làqal nu ko fa yàq yeggul bu ëllëgee yowmal qiyaamati mu fay nu ko gën jaara fetug fay wa ma daalika ala allahi bi azizin fa tabaarakallaahu ki ne caam del siwaat nañ di àndaat ci jataayu lislaam bi ajaam maam faati Jóob del nañ di àndaat ci jataayu lislaam bi maam Coro Faal Ibrahima li Canada ñi ngi del siwaat di àndaat ci jataayu lislaam bi di fas yéene fàttalanteeg mbokk yi loo xam ne at mu jot ñu fàttalante ko ñi ñuy déglu at mu jot ñu fàttalante ko ak ñi ñuy déglu te mooy mbirum 24 décembre ak 31 décembre at mu ne bu dikkee seen émission jataayu lislaam dana ci waxtaan yee ci mbokki jullit yi ñu xam ci seen diine jiinu bokk ban taxawaay la ci am xam ngeen ne lislaam diine la joo xam ni mooy rëddal ñi ci bokk ci li ñuy dugg ak luñ dul dugg lu ñuy bokk ak luñ dul bokk diine jiinu bokk moo leen koy rëddal muy lislaam ñu baree bari ci jullit ñi bu 24 décembre jotee ñi ngi jëndi cadeau bu 24 décembre jotee ñi ngi jëndi yëf ñenn ñi ne seeni njaboot la ñuy bégal ñenn ñi ne seeni xarit lañuy ñuy bégal tuddee ko nawel wala yu mel noonu bu 31 décembre jotee ñu feetu ko soppi seeni reer ñenn ñi dem ci yeneeni bërëb di fa def loo xam ne luy merloo yàlla la lépp ñu tuddee ko feet am na ñoo xam ne nag xëmunu dañuy defandoo riirandoo bokkandoo ñu mel noon nag lañu bëgg a yee ñu xam 24 décembre luy cëslaay li suñ ko xamee da nga xam ndax war nga cee bokkam déet 24 décembre ñi koy feetu mooy ñan mooy ñi gëm ne yenent yàlla Insa doomu yàlla la ñi gëm ne yenent yàlla Insa doomu yàlla la ñooy feetu 24 décembre ak 31 décembre Noël danu wax ne yonent yàlla Insa 24 décembre la gane àdduna 31 la ngénte li ndax yow jullit bi loolu nga gëm ndax loolu mooy sa pas-pas te màggalandoo ñoom bis bi mooy gëm naa li ngeen gëm 31 décembre bu jotee nga soppi ñu ne la lu tax nga soppi nga ne ah tey la Noël ñu ne la Noël luñ ciy màggal ñu ne gane àdduna ak yeneen yàlla Isaa ñu ne ah ñi koy màggal de buñ amuloon pas-pas bi nu am sax mu jar ko waaye seen pas-pas a yàqu. mooy yeneen yàlla Isaa bi mu ganee àdduna dafa yékk yëkkati loxoom ne man jaamu yàlla laa te danañ ci ñëw ci biir waxtaan wi fan la waxee loolu. ñi nga xam ne ñoo ko gëm ne ko doo jaamu yàlla doomu yàlla nga. lam leen santoon yëpp ñu lànk defuñu ko yonent yàlla Isa li mu santoon ñii di ko askanoo dara lañ ci deful ndax buñ ko defoon ay jullit lañuy doon gëm yonent bi ku ne gëm nga yonent yàlla Isa te gëmoo Seyduna Muhammad gëmoo yonent yàlla Isa ndax yonent yàlla Isa bi muy laatay ko ci kaw suuf suñ borom di ko yéegal mu jëm asamaan suñ borom di ko yéegal mu jëm asamaan bokk na ci lim waxoon ak njabootam muy xeetam maa ngi leen di béggalee sama ginnaaw am na yenent buy ñëw ahmad mooy turam bu leen dikkalee na ngeen ko gëm loolu la leen santoon waaye yenent bi ñëw ñu lànk bañ a ji yenent bi ba léegi seen lànk googu lañu nekk duñu wax ba tudd yenent bi te ñu lay naxee dialogue islaam et chrétien yàgg naa leen wax ci lislaam ci ci waxtaan man leen dialogue dialogue islam et mooy tappale yi gën a rëy ci Sénégal ndax nit kii mënoone ne da ngeen dialogue yéen ñaar kaay ñu dialogue suñ ñaari diine yi ci ñoom niñ koy waxee te benn diine képp am bu waxtu wi yaatoo danañ la leeralal ne benn diine képp am mënoo ne nit ki kaay ñu dialogue nekk benn yaw mii jullit bi nga gëm kilifa ki ne la kaay nu mu yenent yàlla Insa nee na mooy kilifaam ñun jullit ñi dañoo gëm yenent yëpp dañoo gëm yenent yëpp laa nu farriqu na ahadin min rusuli yenent yàlla yi amul kenn kuñ ciy gëm bàyyi ko ca des ñun ñëpp lanu gëm xam nga ñun ñoo suñ diine jeeseel la ki na la kaay nu jaloog nga ne ko man gëm naa sa kilifa mu ne la a ah, man na gëmuma sa kilifa boo amee fayda nga ne ko ca pot man it la yow sa kilifa nag gëm naa ko waaye yow gëwuma la ci li nga may wax ñun ñi ngi tuddee yeneen ci Yàlla Isa doom di tuddee sayyidatuna Maryama doom ñoom ñi ne dañuy dialogue ak ñun doo gis ku tuddee yeneen ci Yàlla Muhammad doom ci ñoom doo gis ku tuddee Xadijatu bintu Xuwaylid doom ci ñoom léegi dialogue bi kon ñun ñoo ko gëm ñoom gëmuñ ko moo tax ma ne la du dëgg kon 24 décembre pas-pas bi moo yàq moo yàqu jullit yoonam newu ci waaye Sénégal lu jug rek ñu bokk ci man nga ne korité bu ñëwee nga feetu ko tabaski bu ñëwee nga feetu ko tamxarit bu ñëwee nga ne yaay borom gàmmu màggal ñëw nga dem màggali gàmmu ji ba noppi ña nga xam ne gëmunu li nga gëm gëmunu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga gëm seen bis nga ne yaa koy bokk ak ñoom mais loolu bokkul ci maandu sax wala ci njàmbure kon bokku ci kon yonent yàlla Iisaa nekkul doomu yàlla loolu na leer ci bopp yépp yàlla moo weddi ci alquraanul karim loolu yonent yàlla Iisaa moom ci boppam bi mu ganee àdduna weddi ko xam nga yonent yàlla Iisaa ci kéemtaanu yàlla yi muy def la ganee àdduna سيدتنا مريم داف جيجين جو فغو وون جيجين جو فغو وون سونو بروم ميغي واخ فغوم ديكو تودو تيا سوره التحريم ومريم ومريم امنه عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kitaabihi wa kaanat min alqaanitiin wa kaanat ne maryama doomu imraan ja doomu imraan ja wala soxna si imraan ja doomu imraan ja doomu imraan imraan moo doon baayam amuloon borom kër doomu imraan ja suñ borom subhaanahu wa nee na ku takkoon sërëm la ku takkoon sërëm la tagg la ci jigéen tagg wu rëy la ci jigéen mooy takk na sërëm ku dul jëkkëram xamul lu mu woddoo tagg bu rëy la ci jigéen léegi nag tekki sër xew ku ne la yaay bañ nga ne ko ci yow la desee waaw ku ne la yaay bañ nga ne ko ci yow la desee yaa ko tee neex tekki sër waaye maryama sunu borom bokk na qualité yim jox sayyidatuna maryam alayha salaam mooy maryama maryama ku takkoon sërëm la ahsanat farjaha takk gim takk sërëm moo tax suñ borom nee na ma jël ruux ruuxu sayduna Isa jox ko Jibril mu wal ko ca pëyam gane àdduna te jaarul ci am baay Maryama mësula séq ak góor yàlla moo jël sekkereem bi muy jël defal ruuxu Isa jox ko Jibril mu sànni ko Maryama ci benn bis la def loolu ci benn bis la liggéeyu yàlla mat ci liggéey gi mu liggéey Isa alayhi salaam ci benn bis la yonent yàlla Isa gane àdduna ci benn bis suñ borom ne wa kaanat min ku doon jaamu yàlla la Maryama fegu won na takk na sërëm bam dëgër du xool góor utiwul góor ñi jaxasoowul góor ñi ba suñ borom nam mu kéemtaanam gum bëgg a feeñal mu jaarale ko ci Maryama mooy yenent yàlla Isa jaaree ci yeneen ci sayyidatuna Maryam gane àdduna te Maryam mosula séq góor ca àll ba la nekk rek Jibril fekk ko fa ne ko man sa ndawu borom laa sunu borom moo ma yebal ci yow ngir ne naa la may doom Maryama ne ko doom naka laay amee doom te mësuma séq góor naka laay amee doom te mësuma séq ak góor suñ borom wala kii di jibril ne ko yàlla liila la namm mooy nga am doom te doo am borom kër mu ne ko audu bi rahmaani minka in kunta taqiya maa ngi muslu ci yàlla mi tudd rahmaan ci turam yi la bokk ci yow yàlla ma yàlla musal ci yow bu fekkee yow yaay taqi mi may dégg yenn firikat yi ñu ne taqi tur la jenn waay la joo xam ne ju siif jigéen ñi la nekkoon ci àll bi Mariam nag turuwaa ji mës naa toq ci noppam mu ne ko maa ngi muslu ci yàlla bu fekkee yow yaay taqi ñenn ñi ne déedéet taqiyan la mooy bu fekkee ne ragal nga yàlla maa ngi muslu ci yàlla ci yow kon ba ma jibril ne ko du ñu du ma taqi du ma ko bon bi ñuy tàmbalee discuter rek la jël secret bi rek roof ko Mariama ci sensi Mariama yëg li jigéen di yég ci biiram matul ay minit waxtu yeneen ci Yàlla Insa gane àdduna mu ne hee yaa laytani mittu qabla hada wa kuntu nisyan mansiya mu ne gàcce gii daal dee wuute ko sax moom moo ko gën naka lay demee dëkk ba wax ak samay mbokk mosuñoo gis ma am jëkkër du ëmb xëy indi leen doom gàcce gii de xaw ma naka laa koy nettali fekk noonu bi ko mat mi dikkalee rek la jaaxle noonu Jibril dikkal ko wax ak moom ne ko kéemtaan gi balaa doom jee judd danañ la woon mu kéemtaan mooy ëkku tàndarma gële dem fa nga jàpp ci ëkku tàndarma bi yëngal ko ci si dana màgg ami doom meññi ñor nga dagg ci naan Mariama def noonu dem laal tàndarma ji rek mu ne rëg rëg rëg rëg rëg jug taxaw meññ ami doom ñor mu dagg ci naan yàlla ballal ndox ca bërëb ba mu tànq ci naan jibril né ko lekkal ci tàndarma ji naanal ci ndox mi dalalal sa xel doom ji juddu bu la sa mbokk yi nam sonal ne leen dama nisara woor mooy duma wax ak kenn bul wax sa doom ji moo lay setal mais doo setal sa bopp bi loola amee yonent yàlla Iisaa gane àdduna ci kéemtaanoon kéemtaan googu noonu le mu gàddu xale bi gàddu xale bi utali dëkk ba bi mu duggsee ci dëkk bi ñu gis ko mu yor xale bu ndaw ñu ne ko Maryama foo jëlee kii mu ne leen sama doom la ñu ne ko doom Maryama de bett nganu yow naka ngay amee doom te amoo jëkkër ah kon ndekete sa beru gi yëpp ci àll bi danga ngaa ëmboon di ko ñu ne ko jëf nga jëf ju ñaaw li nga jëf aka ñaaw ndax yow danga bokk ci askan wu rëy danga bokk ci askan wi nga bokk sa baay kenn xamalu ko lu bon sa yaay kenn xamalu ko lu bon nga ñëw di indi doom te amoo jëkkër yaa uxta Haaruun maa kaana abuki mraa saw in wa maa kaanat ummuki baxiya yow mbokkum haaruna mi ndeysaan yow mbokkum haaruna sëru haaruna bi sa baay bonut kenn mësul a xamal sa baay lu bon sa yaay bonut kenn mësu ko xamal sa yaay caaxaan yow nga ñëw di def lu mel nii sa baay du bandi sa yaay du gàncatu forewul sa yaay ci mbedd mi yow nga ñëw di am doom ca amoo jëkkër fa asaarat ilayhi la ko jibril waxoon ne ko fa kulli washrabi wa qarri aynan fa ima tarayinna min albashari ahadan fa quuli inni nadartu lirahmaani sawman falan ukallima alyawma insiya lam ko waxoon ne ko lekkal naanal dalalal sa xel boo gisee kenn ci nit ñi sa mbokk yi ñu bëgg la sonal ci foo jëlee doom te amoo jëkkër ne leen duma ma wax tey moo tax biñ ko naree la jël naan ko euh, laqad jiti shay'an fariya indi nga loo xam ne kenn mosu koo indi ci sa famille lu bon lu ñaaw nga def ah xas ko ne ko yow sa baay nekkul ku bon sa yaay nekkul jigéen ju doon taxawaalu fa asaarat ilayhi mu daal di junjoo xale bi waxul ak ñoom junj leen junj wax leen ak moom ne leen man tey du ma wax du ma wax ndax woor ci luxa mooy téye sa gémmiñ noppi bañ a wax mooy leen du ma wax wax leen ak xale bi ñu ne ko waaw naka lay waxee koo xam ne mi ngi ci berzoom nekk xale bu ndaw xale bu tëdd nii nu muy waxee déglu leen yeneen ci yàlla insa bi seen kàddu di daanu rek yeneen ci yàlla Iisaa yëkkati kàddoom wax boobu mi ngi doon liir bu tooy xeb qaala inni abdullahi aataaniya alkitaaba wa jacalanii nabiyan wa jacalanii mubaarakan aynama kuntu wa awsaanii bisolaati waddakaati maa dumtu xayyan wa barran bi waalidatii wa lam yajcalnii jabbaaran shaqiyan wassalaamu calaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcasu xayya zaalika ciisa bnu maryam قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر ينتي على عيسى يكد kàddoom ne leen man jaamu yàlla لا dégg nga de waxul doomu لا دي ني ني دي ووتو ني woon گم عيسى گمو نيو man maa la ko wax ndax boo gëmee sa kilifa doo ko fenal te ne doomu yàlla la fenal ko la Isaa waxu ko daf ne man jaamu yàlla laa inni abdullahi jaamu yàlla la yow nga ne doomu ku sell ki hmm? jaamu yàlla laa yàllaa man na ma jox téere bu tudd injil muy biibul bi muy biibul te biibul bi da ngay dégg nouveau testament ak ancien testament moo lay wan ne tappale la doo ko fekk ci alquran ñu naan la nouveau alquran ak ancien lépp lu leen neexuloon ci biibul bi rek dajaloo nañ dindi ko ci tuddee ko nouveau testament lu leen arrangé wu rek dindi nañ ko ci moo tax biibul bii ñu yor wérut baaxul baaxul ndax seen bakkan rek lañ ci bàyyi lépp lu leen ci arrangé wuloon dindi nañ ko ci alquran moom kenn mënu cee dindi lenn soo doon tari tey su may tari nii yàq benn araf wala benn baat xale bu gën a tuuti moo may corrigé ah moo lay wan ne mooy dëgg kenn mënu cee soppi dara mënoo cee dugal lu ci bokkut mënoo cee génne lu ci bokk alquranul karim wa jaalani nabiya yàllaa man nam ma def ma doon yenant def ma ko nu barkeel fu ma ci nekk dénk ma may julleeg joxe azaka fekk maa ngi dund dénk ma ma fonk samay ñaari wayjur defuma ma nekk kuy ngand ngandul wala ku nam texe di jàmm yàlla na dal ci sama kaw bis bii ma juddoo ak bis bi may faatu ak bis bi may dekki ay sam nu maryaama ngoog ay sam nu maryaama ngoog yàlla ne li ngeen doon werante ci mbiram mi ngi nii leer na mbokk yam ne wedam ndax kéemtaanu insa ci muy juddu di wax masuñ koo gis gannaaw mosuñoo gis ñoom liir buy wax kon boog valable na liir bi ñëw te du am baay ñu daal ko nangu yàlla ne jaaduwul yàlla di am doom ci làmmiñ yonent yàlla Isa maa kaana jaaduwul lillaahi ñeel bur yàlla an yattaxida min waladin mu naan diwéy sama doom subhaanahu yàlla su bëggee dogal dogal dara danaa nekkal rek mu nekk yàlla la soob mu ne Maryama nekkal ci Maryama mu wax ca kun pour Insa nekk ca moom mu ne kun Insa nekk ci moom di doomam loolu yàlla la kon xam nga lu xewan ah, mooy wa inna laa rabbi wa rabbukum yàlla mooy sama borom man Insa mooy seen borom yéen ñi ma gëm jaamu leen ko loolu mooy yoon wu jub bi waaye lii mbokk yi leeru nañ ndax lii leeru nañ kon ñii feetu 24 décembre ak 31 décembre naan Insa doomu yàlla la mais jullit yoonam néewu ci yow gëmoo ko bisu 24 décembre boo ci changé reer wala 31 décembre mi ngi mel ne nee nga yàlla ndokkale bis bii la judd bis bii lañ koy ngénte yow nga ñëw de dangay ngay jënd ay ganaar pour di changé ñu ne la lu xew nga ne a ah, bis bii de ci la doomu yàlla juddu ah da ngay ndokkale yàlla ci doomam ji noonu la mel. bo feto 24 wala wala 31 wala nga jëndal ci say doom ay cadeau Noël mi ngi mel nga ne yalla ndokkale ci sa bis bi te bis bi kat bu fekkone yalla mosna am nakar bis bobu rek la mosa am nakar moy biñu ne yalla am na doom moo tax suñ borom wax ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam wa qala almasihu ya bani israila اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانوا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات tumma undur annaa allahu akbar yàlla ne te dëgg dëgg dëgg ñi naan insa doomu yàlla la mooy kuréel bi tudd Nasuuriya ci seen biir ñooy wax insa doomu yàlla la ñooñu ay yéefar weddi nañu yàlla kon ku leen jàppale ci seen bis bi léegi tey nga doon yéefar léegi tey nga doon yéefar ndax yàlla mu ne ñi naan doomu yàlla la yéefar lanu suñ borom ne moo ne de masiix muy Isa ibnu Maryam bokk na ci turam yi masiix yéen waa banu Israil jaamu leen yàlla wéetal leen ko ubudullaha wéetal leen yàlla da ngeen gëm ne yàlla mooy sama borom mooy seen borom képp ku bokkaale yàlla ba dee ci suñ borom dana la xañ àjjana ngir nga dugg ca maanaam ku dee ci wax insa doomu yàlla la àjjana moom doo fa dem jëm safara nga jëm sa tàppuwaay mooy sawara déet di ñeel yéefar yi ku leen mën a dimbale ba jañañ leen mbugalum yàlla ñii di wax lii di feetu 24 ak 31 naa ne Isa doomu yàlla la suñ borom nee na ëllëg buñ ci dee tuubunu ba dee ci loolu safara la nu jëm amul kenn ku leen mën a defal intervention amul ku leen mën a dimbale ba duma leen duma suñ borom ne yéefar la ñi naan yàlla mooy ñetteelu yàlla ji mooy yéefaru marquus yi ñi naan baay jeeg doom jeeg ruugu sell gi baay jeeg doom jeeg ruugu sell gi <laughs> suñ borom ne maa ngi leen di yëgal amul yàlla judul jenn ñett yàlla amut Insa yàlla la Maryama yàlla la yàlla yàlla la déedéet déedéet yàlla mu ne jenn yàlla képp moo am yàlla mu ne attention wa in lam yantahu bu nu bàyyiwul amma na li nuy wax naan diw doomu yàlla la ak Maryama yàlla la Insa yàlla la da dégg ci seeni parole ñu naan sunu yàlla ji sunu kilifa la sunu yàlla la sunu boroom ne loolu kàddu yooyu noonu le mooy diw sunu yàlla sunu yàlla diw di di di Iisaa nga ne mooy sa yàlla wala nga ne doomu yàlla la yàlla mu ne bu nu bàyyiwul loolu wa in lam yantahu bu nu daytaluwul bàyyi naan bu nu daytalawu daytuluwul bu nu daytalawul bàyyil naan diw doomu yàlla la bu ñu daytaluwul ci loolu amma yaquluuna loolu ñuy wax noonu naan diw doomu yàlla la bu ñu tuubul ñoom yahuud yi ak nasaraan yi juif yi yi bu ñu tuubul loolu suñ borom ne la yamassanna xalfet na laal alladina gaa ñi nga xam ne kafaru ñoo weddi yàlla minhum ci ñoom di wax loolu xalset na leen laal adaabun alimun mbugal mu métti mu yegg ci seen xol yàlla mu ne waaw afalaa yatuubuuna ilallah tee ngeen a tuub jëm ci yàlla bàyyi seen wax ju ñaaw jooju ngeen di wax wa yastaghfiruunahu ngeen jéggalu ko wéetal ko xam ne wallaahu buur yàlla gafuurun ku mën a jéggalaa laakoon la ci ku tuub gëm ko rahimun kuy yërëm la ku dee ci ak tuub ndax du ngeen bàyyi loolu ngeen di wax yàlla mu ne daal kaay mu wax leen ne nu maryam nu mel mal masihum nu maryam illaa rasulun insam nu maryam daal nekkul lu dul woonu ku yenant ab yenant képp la woon kat xat xalat wayoon na min qabli la ko jiitu woon arusulu yenant yu bare baree baree bari wa ummuhu yaayam siddiqatun siddiqa la woon mooy bu doon góor la kon yenant lay doon mooy garaat bi gën a kawe ci garaat yi mooy siddiq mooy moom yaayam Maryam waaye nag kaanaa kaana yakulaani taama ñoom ñaar nag dañ doon lekk ñam dañ doon lekk ñam te yàlla du lekk Insa da doon lekk yaayam tamit da doon lekk ñam yàlla mu ne kaana nekkoon nañ ñoom ñaar yakulaani di lekk ataama ñam undur yàlla mu ne xoolal yow sayduna muhammad kayfa nubayyinu lahumu laayaat naka laa leen di leeralee mbir yi ba mu leer ci ñoom nañ ñu xam ne Insa yaayam nekkuñu woon ñaari yàlla su ma undur topp nga seetluwaat yow Muhammad ana yu fakuuna naka la ñuy soppi mbir yi def ko ay fen lu nekk leeral naa leen ko ci seen bopp ngir ñu génnee ci seen xel ne Maryama du yàlla doomam du yàlla doomam du sama doom nu nekk laa jaar ngir leeralal leen ko waaye ñu ngi woy di kàcc rek di fen ana yu fakuun if ko mooy duur mooy fen wu rëy a rëy woo xam ne kenn mënu laa wax nu mu toll xam nga fen sax da ngay jël dëgg rax ci leneen mais duur moom raxoo ci dara bu doon misaal fen dafa mel ni nga sopp nga fekk soow nga sotti ci deret mooy fen mooy kàcc waaye duur nag moom mooy nga ñëw jël paanu deret teg ko nga xam ne dara daray soow nekku ci loolu mooy duur moo gën a garaaw fen suñ boroom nag mu ne ñii dañuy duur ñoom dañuy luur dañuy luur kon loolu mooy lii suñ boroom leeral wax na ko ci ay aaya yu baree baree bari ci alxuraan waaw wax na ko ci ay aaya yu bare bare baree bari ci alxuraan waaw am na fenn def ne قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات ما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا ñoom yahuudi ak nasaraani ñi ngi wax ni ittaxada allahu walada yàlla ndokkale yàlla am na doom ndokkale waaw ñii feetu 24 décembre dañ ne yàlla ndokkale ci sa bis bi sa doom ji judd suñ borom ne subhaanahu seet akama sel walis may am dom huwa ghani yalla mune ne ma womal li nek ci asaman juróom ñaar ak li nek ci suufu juróom ñaar lepp may borom waaw ndax da ngeen am ben preuve buy wane ne insa sama dom la wala ataquluna ala allahi ma la ta'lamun ndax da ngeen di waxal yalla lu ngeen xamul nan yalla dafa am dom ndax da ngeen di waxal yàlla lu ngeen xamul naan yàlla dafa am doom suratul kahfi mu ne wa yundira alladina qaalu taxada allahu walada maa lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan taxruju min afwaayim in yaquluuna illa kadiba mu ne yow yenent bi ci alquran waareel ci alquranul karim nga yëgal gaa ñii muy yahudi yi ak nasaraan yi ak lenn yéefar yi musrikiine yi nang leen waar ndax ñi ngi naan yàlla dafa am doom ñi naan yàlla dafa am doom te li ñuy wax amuñ ci benn xam amuñ ci benn preuve buñ mën a joxe yàlla mu ne kaburat rëy na lool màgg na lool kalimatan kàddu gi nga xam ne taxruju mi ngi génn min afwaahim tukkee ci seen gémmiñ yi kàddu gi génnee ci seen gémmiñi ne diw doomu yàlla la yàlla mu ne kàddu gu rëy rëy la in yaquluuna waxunu illaa kadiban lu dul ay fen yàlla mu ne ñi naan diw sama doom la dañuy fen alxuraan la de soo ko waxee yenn julli yu feebu leen ñu naan non loolu moom vraiment rafetul waru la waxee noonu quoi bindal leetar yàlla nga ne ko yàlla waroo waxee noonu ni ko yàlla waxee rek lañ koy firée de yàlla mu ne in yaquluuna ñii naan Isa doomu yàlla la waxunu illaa kadiban lu dul ay kàcc ay fen dañuy fen yàllaa ko wax de boo ne waru la waxee noonu nag da ngay bind leetar yàlla nga ne ko yàlla waroo waxee noonu waroo waxee noonu ki nga war a ki nga war a wax kay ne ko waroo waxee noonu mooy ki naan diw doomu yàlla la moom nga war a wax ne ko waroo waxee noonu waaye ki ne leen da ngeen di fen waxu yàlla la firi yàllaa ko wax de sóoratul këf bi demal soriwul dara boo ubbee këf fi verse cinq rek nga fekk ko fa cinq nga fekk ko fa nga fekk ko fa yàlla mu ne keroog bi asamaan déggee kàddu gu googu yàlla ne moo génne ci seen gémmiñ asamaan si da doon bëgg a fàq daanu bisu 24 décembre keroog biñ génnee kàddu yàlla am na doom asaman dafa tit bay bëgg daanu asaman dafa tit bay bëgg daanu wa shaqul lard tremblement de terre dañ doon bëgg am bisu 24 décembre wa khalu taqad rahman walada laqad jitum shayan idda takaadu samawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu lardu wa taxiiru ljibaalu hëddaa an daawu lirrahmaani walada wa maa yambagi li rahmaani an yattaxida walada allahu akbar suñ borom ne ñoom yahuud yi yi juif yi ñu naan yàlla dafa am doom suñ borom ne leen laqat ca dëgg-dëgg jitum dikk ngeen say an mbir iddan mu bona bona bona bon ngeen def wax ju ñaawa ñaawa ñaaw ngeen wax te kaadu samawaatu yatafattar na suñ borom nee na tuuteetee asamaan ci fett daanu ci seen kaw ngir lan minhu ngir seen wax ju ñaaw jooju ñu wax wa tanshaqu lardu tuutee tee suuf si xar mabbu daanu tremblement de terre am wa taxirul jibaalu tuutee tee montagne yi seey buddeeku tasaaroo doon pënd hëddan dammatoo mokk mi naa yàlla lii moom asamaan di bëgg a fàq daanu tremblement de terre di am montagne yi bëgg a buddeeku toj lan moo xew mu ne an daaw dañoo woote li raxmaani ñeel buur yàlla wala dan ne am na doom Uzayr la yahuud yi wax ne mooy doomu yàlla Uzayr la juif yi wax ne mooy doomu yàlla yeneen ci àlla Isa la chrétien yi ne mooy doomu yàlla asamaan bi mu déggee kàddu googu dafa tiit bay bëgg a daanu suuf si bi mu déggee kàddu gi tuutee tee mu màbb yàlla ne na maa leen wax dal leen rek waaye ñoom moom naruñ ko woon a fekkee ñuy waxal yàlla lu mel noonu yàlla mu ne wa maa yambaxi jaadu li rahmaani ñeel buur yàlla an yattaxida wala daa muy am doom jaaduwul ci yàlla muy am doom te ñoom dañ ne yàlla am nga doom waaw mbokk yi lii bu leeree ci bopp ndax bisu 24 dana jot wala 31 nga naan yaa ngi jënd cadeau di ko jox say njaboot wala ngay soppireer reer déedéet bisu 24 31 décembre kenn du ci soppi na ne da ngay feetu du feet bis la boo xam ne danga nga war a tuub tiit bis bu asamaan doon bëgg a daanu nga naan yaa ngi koy feetu ñenn ñi dal xel dal xel gu toll ni dem di baali dem di baali 24 décembre bi maa ngi gis ay xale yu baree baree baree bari ñu ngi leen yóbbu ci benn bërëb nit ku tekkiwut dara woo leen fa di leen fecciloo tus la nit kooku tekkiwut man maa la ko wax xale boo xam ne deful métier lu dul sol ay robb sol robb sol takk caq mais góor di sol robb di takk ay caqu jigéen kooku nga jël ay xale di ko ko jox kooku royukaay la Sénégal xale yu tuuti heure boo xam ne heure timis suñ aaday réew li mu xam mooy timis xale du génnati timis bu jotee yow nga jël gannaaw gee nga dajale ay xale timis wees na gee heure bu xale war a tëdd nelaw dalal yaramam nga dajale xale yi di leen fecculoo léegi loolu ñuy waxtaan ci dëkk bi ñu leen di tuddee ay sociologue doo dégg mukk ñu interroger interroger leen ci ñu wax ci lu mel noonu lan la war a mën a def ci xale bi gannaaw jëm na ci mpo duñ ci wax dara waaye bu fekkoon lu laal dara ci diine la yu mel noonu léegi tey nga dégg mbel-mbel waa loolu moom rafetul xale yi ñu dajale lii waaye léegi kan ngay dégg mu ne rafetul nit koo xam ne tekkiwu dara góor guy sol ay colug jigéen ñu jël xale yi ne leen dem leen ngeen fecci kooku mu leen di tëggal di leen feccal ngeen di fecc paas ñaari junne dix mille francs CFA yow ma ko yóbbu paas dix mille xale ba nga yóbbu paas dix mille léegi bu ñuy wax ñu naan exploité xale yi dañ koy xeex loolu du exploité xale moom ndax loolu du exploité xale bis boo xam ne nag dañ ne doomu yàllaa ci juddu yow amoo ci menn xel mu dul jël sa doom yóbbu ko ci bërëb paas sa doom paas ngeen di pàkkar ñi yaa ngi tëb di dal bis bu suuf si doon bëgg a daanu bis bu suuf si doon bëgg a xar bis bu asamaan doon bëgg daanu yow ngay pàkkar ñi ci bis boobu di fecc boo waxee ñu naan tonton diw ak tata ñu xëyatu ñu naan xaw ma tata diw leen woote nga xam ne ñoom ñaar ñëpp kenn ci tekkiwul tus ci réew mi du ñuy royukaay ci benn jikko jigéen joo xam ne wat sa bopp takk benn jaaro def benn loxo doo royukaay léegi nag bu demee ba xale yi ñooñu leen jël teg leen ci seen kanam mais dañ koy dénoncer ay nit lañ ñu tekkiwut dara tus la ñu tekkiwut tous tekkiwuñ ko man maa la ko wax duñu royukaay démb duñu royukaay bërki démb duñu royukaay tey te duñ doon royukaay ëllëg bu nu bàyyiwul lii nu mel nii nu mel nii jigéen juy wat boppam góor guy soli robb ñooñu ñu jël xale yi teg leen ci seen kanam suñ ndaw ñi ëllëg fu ñu jëm suñ ndaw ñi ëllëg fu nu jëm su ko defee loolu mooy waxu suñ borom ci alxuraan métit lu naqarlu li ñu ne li ñu ne insam nu maryama doomam la yàlla mu ne du sama doom am na feneen ci alquran day wax ni li ma defoon tax démb moo gën a yéeme xolal xolal suñ maam aadama kuy baayam kuy yaayam yàlla xëy bind ko amul baay amul yaay mais li gën a yéeme kay mooy amoo baay amoo yaay xëy na jamet moo gën a yéeme jaar ci yaay amoo baay te yàlla mu ne def naa loolu def naa loolu waaye yooyu yëpp jullit ñi nax nañ leen ci woo leen ci waaw diine yi fi nekk benn la diine yi diine yi làmmiñ kese lañ koy tudd waaye diine ji moo am muy jenn diine képp mooy am mooy lislaam te bokk na ci laay ji ñu leen naxee mooy lakkum diinukum waliya diini lakkum diinukum waliya diini téye leen seen diine ñu téye suñ diine awaay awaay mel na yow li nga yor baax na ñun liñ yor baax na firiwul lool de imaam Qurtubi nee na lakkum diinukum mooy lakum ñeel la leen yéen ñi dul jullit diinukum seen bokale ak yàlla wali ya ñeel na ma man muhammad diini sama diini diini sama diine fekk xurtu bi sax mom dafa wax ni dañoo folli laaye jooju lakum diinukum wali diini mu ne wéeratu dañ ko folli laaye yi digle xex mo folli laaye joju waye neena buñu jëlé maana mi limi firi lakum ñel na leen diinukum payu yoon wi ngeen nekk li ngeen di jaamu bu ngeen faatoo moom la leen yàlla yàllay fay wala yéen ñeel na ma man Muhammad diini sama payu diine jii ma yor te xam nga ne ëllëg kenn du fayeeku ku dul jullit imaam Baxawi ne lakum diinukum mooy seen bokkaaleeg yàlla téye leen ko yem leen ci waliya diini man ma téye sama lislaam diinu gu njëkk gi baaxul lakum diinukum diinu gu njëkk gi baaxul ibnu jazzi moom itamit ne laay jooju dañ koo folli muy lakum diinukum waliya diini dafa am laay yoo xam ne ñi ngi koy jàng ci alquran nekkatul lu sax àtte bi saxatul imaam nas fii ne lakum shirkukum seen bokkaale téye leen ko ma téye sama wéetal yàlla hmm? ibnu abbas ne lakum diinukum mooy kéefër ak bokkaale ak yàlla waliya diine mooy lislaam ak ngëm yàlla mu ne loolu la doon tekki mu ne laaye yi digle xeex bi mu ñëwee nag laaye jooju folleeku ah loolu leer na mbokk yi suñ boroom gën koo leeralaat ne bu leerul ci seen bopp xam nga lu ma leen di yëgal ah mooy inna diina inda allahi islaam diine fa yàlla daal benn la mooy lislaam du ñaar du ñett inna diina inda allahi islaam inna diina indallahi islaam ibnu kasir ne suñ borom mi ngi leeral foofu ne amul benn diine ju yàlla nangu judul lislaam mooy topp yenent bi sallallahu alayhi wa ci li ko yàlla jox ci bépp jamono yenent yi jiitu woon yëpp ay mission lañ yoroon yenent bi bi mu ñëwee na la tëj mission yenent yi nekk ki nga xam ni moo tëj mbooleem yoon yi jëmoon ci yàlla benn yoon dong moo ubbeeku jëm ci yàlla tey mooy yoonu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku dajeeg yàlla gannaaw bi yàlla yónnee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am lenn loo nekkoon di jaamu yàlla ca yoon woowu bu dul shariatul muhammadiya ibnu kathir nee na yàlla du la nangul sa jaamu ndax yàlla moo ne wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin ku jël leneen lu dul lislaam def ko muy diine suñ borom du la nangul te ëllëg boo ñëwee da nga perte ëllëg yomal xiyaam boo ñëwee da nga perte. Ibnu Kasir loolu la wax lool leer na mbokk yi nañ li nga yor baax na li ma yor baax na kay mooy tax kenn du bàyyi lam yor di dugg si ci lislaam waaye li tax nit daan tuub di dugg ci lislaam mooy ñu gëmloo ko ne ko hey xam nga lu ñu lay yëgal sa lii nga nekk diine ji doxatul. amul benn diine bu doxati bu dul lislaam benn diine képp mooy dox mooy lislaam alxuraan la de du waxu nit mi ngi mel ne APR nekkoon mi ngi mel ne PS ngi fi woon PDS mi ngi fi woon PDS yor nañ pouvoir bi léegi jeex na APR ñoo falu PS yoroon nañ pouvoir bi wàcc PDS jël PDS jël wàcc APR jël tey fi may waxe génn président Macky sàll mooy njiitu réew mi Ablaye Wade doonatu ko Abdou Diouf doonatu ko kon nit ki bu ñëwee ne Abdou Diouf ay sama président ci tur rek lay doon de waaye doonu ko de amul signature am buy doxati nit ki bu ñëwee ne Abdoulaye Wade mooy sama président doxatul de ci làmmiñ kese la mais signature am doxatul ban signature mooy dox jamono ji mooy bu Macky Sall noonu laa lay joxe misaal pour nga dégg Insa yeneen ci yàlla Insa ak yeneen ci yàlla Moussa noonu la nu meloon ay yeneen ci lañu woon yàlla yónni woon waaye bi ñu faatoo la seen mission jeex mission bi nga xam ne borom ba muy dund mi ngi ko yor ba keroog yàlla di fay jant bi day continuer mooy mission sayyiduna muhammad yenent bi ne képp ku dégg sama woote muy yahud wala nasaraan nga faatu te wuy si woo ma boo dee sawar a nga jëm hadis bu wér la muslim ko solo kon yow jullit bi bu la kenn naxee yooyu na nga gëm sa bopp gëm sa diine gëm ne moom kese ngay jaamoo yàlla yàlla nangul la ku dul kooku mu def ci lu baax fii la ko ko yàllay fay balaa faatu ëllëg du fa fekk dara loolooy li wér loolooy li sax ci teg si diine yi kon 24 décembre 31 décembre loolu mooy cosaanam mooy ay nit ñu seen pas-pas yàqu ñu naan diw doomu yàlla la keroog rek maa ngi dégg ñuy wax kàddu gu garaaw kenn ci ñoom di ko wax mu ne mu ne Jésus moom lañ pendre noonu ci ci ci croix bi moom lañ pendre noonu suñ borom ne déedéet yàlla mi ngi koy weddi ne wa qawlihim inna qatalna almasiha isa bna maryam rasulallahi yàlla ne wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walakin subbiha lahum yàlla mu ne ak seen wax ju garaaw ji ñuy wax naan insa insa mii doomu maryam ndawal yàlla li euh, moom lañu rey noonu pàndru ko suñ borom ne déedéet àndandoom mu ñoon wax Tadyanuus la lañu rey waaye yàlla mu ne Insa kenn reyu ko kenn pànduruñ ko ku nurook moom biñ jëlee Insa di ko bëgg rey suñ borom dafa jël ku ñuy wax nuus la jël teg ko palaasu Insa Tadyanuus la ñu rey mais reyuñu Insa kooku ci kurwaa bi du Insa du Insa loolu moo lay wan ne ay caaxaan la nekk. yii nag dafay diis lool ci nopp ñenn ñi mais kum diis ci sa nopp rek alxuraan a diis inaa sa nulqi alayka qawlan saqilan nag alxuraan dafa diis moo tax bu jógee day diis ci nopp ñenn ñi ki ci kurwaa bi yàlla mu ne do insa mais léegi yow waxu yàlla ngay gëm wala waxu ñooñu di ko wax ngay gëm ba muñ koy jéem a layal naan waaw xam nga pandemie moom lu yàggoon la daan nañ ko def xeet sàngam xeet sàngam ma ne ko hee alxuraan waxul lool de alxuraan nee na Isa nekkul moo ne ci croix bi waaw bu fekkoon ne Isa sax moom lañ def noonu est-ce que rafet na sa kilifa ñu pendre ko nga koy wane est que rafet na jël liñ ko solal solal ko ko ba noppi jël ko wéeg dafa ñaaw sax ci image ci gis-gis rafetul suñ borom nee na reyuñ ko pendrunu ko moom Isa mais dama ko jël yéege ko ci asamaan ba rafaahu llahu ilayhi waa léegi yow nga ne Insa lañ jël rey ko pendre ko ba noppi nga gëm loolu ba noppi gëm bis boo xam ne da ngay feetu yéegge Insa yéegoon ci asamaan yéeg googu moo wér mais du rey gi gis nga contradiction boobu noonu am ci seen pas-pas nee nga Insa moom la ñu rey daaj ko ci croix bi ñu ne la waaw nga ne Insa mii ñu rey daaj ko ci croix bi moo yéegoon ci asamaan ngay feetu bis ba mu yéegoon léegi dafa yéeg xanaa wàccaar kon ci sa ngëm-ngëm yàlla mu ne dama koo yëkkati jëm jëme ko ci man yooyu yëpp pour leeralal la yow julit bi nga xam ne ñii yii ñuy feetu yow sa yoon newu ci pas-pas bu yàqu la pas-pas bu bon la pas-pas bu tilim la 24 décembre 31 décembre bis bu doomu yàlla judd bis buñ koy ngénte yoonu ko gëm rasulullahi gëm insa na nga ko war a gëmee ne jaamu yàlla la yonent yàlla la doomu sayyidatuna maryama la yow waroo feetoog ndo ndoog ñoom bis boobu noonu leen ndéem gëm nga sa diine kon lii moo nekkoon seen jataayu lislaam niñ ko doon defee at mu nekk bu bis yi jotee ñu fàttali jullit ñi seen po seen pas-pas noonu rek lañ ko defaatee di ñaan yàlla mu defal ñu ci dégg gu ànd ak topp ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات yawma yaqumul xisaab tabaarakallaahu yàlla yàlla yombalal nu dund ak dëkkuwaay waru waaye koddaay may ñu fa nu gudd wa ànd ak wér yaram defal nu mujj gu rafet yombalal ñu suñuy càkkutéef yëpp fajal nu suñuy xaaju yëpp defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi alaaxira ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii moo nekkoon seen jataayu lislaam ak seen mbokk Oustaz Makhtar Sarr ba beneen yoon ak beneen jataay incha allahu taala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 خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حق حقا لله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين